مولنا ومولده به شرف وادينا ومولده به شرف وادينا ومولده به شرف مولنا مولنا ومولده به شرف وادينا ومولده منا محمدا المختار في القدم أسمى نسوف في جوطة بوري garab yi di ko aw ndox yi di ko aw montagne yi di ko aw dara jëy nam Cheikh Al Hadj Malick ak ay maratibam ci wàllu yàlla di yéeg di gën di yéeg di gën di yéeg du wàcc mukk yal nañ ko yàlla seet ah am na ci loo xam ne dañ koy sant yàlla waaye ñu jaarale ko ci jëmm yaakaar naa ne ñi ci tànn ñi leen ci tànn bi war nañoo mën a ànd man gëm li may bëgg a wax cofeel gi ñu am ci sallallahu alayhi wa sallam yàlla jëmbal ko ci suñu xol yi sallallahu alayhi wa sallam ba dem ba gënal buñ demee ba di ko tàqam jëpp yàlla nga ko jaarale ci borom parasol bi nga xam ne bii nee nañu ragal naaj ragal naaj moom ko yore parasol bàyyi seen góorlu ñi mu am ñëpp dugal na ci biir parasol bi kon buñ demee ba gàmmu as tiilu as am lépp yëpp ñu gàmmu تبني تبني قصة قصة خلق يا برون ونجد الدم مشان حد ما يولد المهم لك عمو لفتي لفتي لفتي لفتي الحس أو ممكن الحس مكني سلب لن تكون ما دفني kaay leen ngeen ànd ak mën ñu gàmm waaye charte bi mooy bu leen ci dugal ko ci bopp lépp luy niru ci xaar wala muy niru fokk bu mu ci bopp jigéen ñi bu ñuy ñëw nañu sol la jot nañu muuru li ñuy sol bu mu seer bu mu dagg bu mu yàq ndax la femme musulmane dafa am lu mu war a solo am lu mu war a comporter góor ñeeg jigéen ñi duñu jaxas loolu moom Cheikh El Hadj Malick daf cee insisté dañu ko laajtee ne ko si comme que dañu nekk ak yow di wut yàlla dañoo bëggoon a xam lan moo la naqari ak lu la neex mu ne Malick amul lu ko neex amul lu ko naqari lu dul lu neex yàlla wala loo xam ne dafa naqari yàlla bokk na ci gën a neex nag naa ni loolu mu mag mu toog ay xale waru ko wala di daggal xarafi alquran kooku su ma mënoon mën naa ni maa ngi koy yore lépp na ci li ma naqari man maa toog gis sama ëtt bi fii dégg baatu góor ci jigéen ñi man maa ngi ma fi ma toog nga dem ma paaka ci xol may kat di kat a woyofal dégg góor ci biir jigéen kon kooku folu fowul foluwul kon koy gàmmu na nga xam koy gàmmu si su ngeen ak nelaw indiwu fi kenn daayira yi fédération yi dañu fexe ba organiser wu ci wàcc ay kaamilu alquran def ay xalaqaatu ba majalis bu dikk tudd yàlla jàng alquran toog jox nit ñi ñu mos xéewlu sutur la ku ci man ku ci tane sa borom nga yëkkati loo ko jox la dimbali ko ko ngir yàlla mbokk yi loolu koy tax mu jëlee ci tuyaat mbaa discours bi def na comme arab bi dafa gudd dañ koy tënk ci points yi benn par benn pour mën a gagné du temps bi ci njëkk marché xedina rek nee na gàmmu mooy ñun ñëpp ñu am bëgge diine islam bi nga xam ne yàlla moo ñu ko jox jaaree ba ko ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te avant l'islam bi ñëw ñun ñëpp ci ak képp doon nañu nekkoon temps bi ñu ko may mais yàlla moo ko wax wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubiin jaamu fa rek ku mën sa borom duma jël nit ñi daf leen ay jaam daf leen ay mangom dina ko seen alal jigéen ñu di ko dollante jigéen amul cër ci benn côté ci penc wax bokkul dañ daan jël doom yu jigéen gas ba mu ci biir ndax ne nee na jigéen dafa ñu ñu dal ci bi lislaam ñëwee bu dindi loolu yëpp mbégte moomu nag moom la gàmmu gis nañ ko gis bi ci tegu man xalifa bi nee na mi ñuy denc ñun ñëpp mbokk yi dañu am bàyyi yàlla xel dañu am bàyyi yàlla xel yaa ayyuha alladina amanu taqullah na yéen ñi gëm yàlla yéen ñëpp da ngeen am na ngeen ragal yàlla def ay ndigalam te suñu ko defee sëriñ bi nee na fitna yi ñu nekk ci biir réew mi àdduna bi yëngu crise yi di di bari feebaru xol yi di di bari bu ñu ko defoon rek mbokk yi yooyu yëpp dana wàññi la waykat ba wax ne faqat wallahi maa jaawara qalban muminin illa was ku bëgg a àgg ci yàlla da fexe ba yàlla di la yàlla sant nga def di yàlla tere nga bàyyi xalifa bu nee nañ ci baax a baax bu njëkk bi sëriñ bi nee na mi ngi woo mbooleem autorité yi nga xam ne nekk ci dëkk bi te yàlla baaxaleen jël jëlu réew mi def ci seen loxo Sénégal jikko yi wàcc na bu baax a baax a baax a baax ci ndaw ñi ci lenn ci mag ñi toll la foo xam ne am xel mu rafet da nga ci sëriñ bi nee na ñu ngi interpellé gouvernement bi ak autorité yi nga xam ne ñoom la yàlla jox kilifteef nañ ci dugal seen mbokk lu ñu mën ci jéem a yàqte woon ci dañ leen a tàyyi rek ñu nekk ci mbedd bi ñu fexe ba fàq leen bañ leen a rejeté am na koo xam ne mi ngi def tax am na koo xam ne mi ngi agi fekk dafa amul le Cheikh El Hadj Abdoul Aziz waxoon radiyallahu anhu 1952 ci benn téere mu taalif nee na bari na koy coow te fekk dafa mos bu ñu fexe woon ba ñëpp mos rek jàmm ko kon kilifa gi nee na dañu bàyyi xel ndaw bi jàpp leen bu baax a baax ci seen wàllu njàng ci seen wàllu bi ci tegu moo di ñun ñëpp dañu yëg ni am nañu responsabilité bu mat sëkk ci suñu njaboot bu kenn démissionné ci sa njaboot Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu benn mbokk ak ma mas a laaj yéen jikko moo la gën a neex ci moom ne bu njëkk bi mooy bëggee di nit loolu ak ak loolu ci ci nit Cheikh El Hadj Abdoul Aziz xajoon na boo defee njaajaan ci suba ci moom su ngoonee nga defar jarul la ko làmp poche lu ci nekk ci anam mu jox la ko baax nga xam mais du la ñett du la nàcc am sutura itam nag loo seqal moom su génnee yaa ko génne mais du génne ci àdduna kon sëriñ bi nee na nañu bàyyi xel responsabilité yooyu dañu tàmbali ñun ci suñu bopp yar suñu njaboot état bi jàpp nañ ci lépp loo xam ne dafay yàq njaboot na ci état bi tax am na ci ay sachet yu ndaw yoo xam ne sangara lañ ciy def di ko jaay ci ay barab xale yoo xam ne ñu ngi door a jublu di ko naan nee na loolu dafay yàq benn bokk na ci point yu juróomeel bi moo di sëriñ bi nee dañu xam ne naqar bii ñu nekk problème yii ñu nekk crise bii bii ñu nekk dara waral ko lu dul dañoo bëgg a doxal loxol yàlla yàlla bi bind asamaan dama koy bind ñoom fekkewuñu xamuñu tëral ay yoonam ñun ñu ñëw am ay politique ci wàllu politique ci wàllu système ci wàllu idéologie ci wàllu xalaat li ñu bëgg a doxal te du Sénégal rek daanaka àdduna bi yëpp la dem nañu ba ñu gëm mooy laïcité nañu doxal àdduna séparé diine ak wàllu état génn na ci loxol yàlla génn nañu loxol sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nga xam ne ñaar fukki at ak ñett la dund di ko yàlla yónnee 40 ans fekk 23 ans 13 ans yi mu def ko màkk 10 ans yi mu def ko Médine période bu gàtt yàlla dimbali ko bu taxawal dawla rachid état boo ci yoon kenn du not kenn kenn du not kenn. sang bi daana xëy saxaaba xam ne ne am nañu am doole ñi amul mu ne kat léegi seen kër ku ci nekk la fa nga indi ko am na ñoo am mbàkke ñi indi dix tonnes ñi indi cinq tonnes am na ñoo xam ne un kilo lañ am bu liggéey mu seet espèce yi mën a andi yëpp mu mélange su paree mu partagé leen ko ñoom ñëpp ñu bokk ci yëpp ñi amoon nag ñi amoon mën nañoo toog weer wala ñaari weer kenn du yelwaan kenn du tàllal loxoom nañ jox ma lu ma tuuti bokk yi sàmm diine solidarité rek fa tabaraka Allah kon sëriñ bi nee na ñu fexe itam mi ngi lancé état bi fexe ba li ñuy tuddee al adaala al ijtimaaiya la justice sociale ñu fexe ba jéem ko instauré ci dëkk bi ku tooñ ñu xam ne dangaa tooñ ñu teg la ci koo xam ne ñu tooñul ñu bàyyi ko ak liberté boobu ko libre man astahdatkum an-naas faqad ghalaqatkum ummahatukum a'raadan kañ ngeen bëgg a ay jaam te bi ñuy génn ci seen ay góor yu set wicc duñu ko. di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di saal di leen di ñaaw. dama tax objectif bi bokk. ah objectif bi. waaw ah. bépp géej gi boo xam ne. Ah, baax na borom amul sa gis. saa ko ko yëngu doo ko def. saa ah, ko ko fonk sa tey doo ko def. ko fonk sa tey doo ko def. bi ci tegu sëriñ bi nee na mi ngi ñuy woote ñun ñëpp ñu jël dog dagul instant bi tolérance alayhi salaatu wasalaam mas naa toog ci kër benn kër soxnaam ihda sayyidaati bayti mu wër li mu toog ànd ak saxaaba yi alayhi salaatu wasalaam mi ngi fekk tey bu dee bokk yi saxaaba yi dañu ko dëggoon bu ñu toogee moom képp bëgg a jóg buy gàtt dañuy dëgg ndox mi seen ndox fexe ba wut suñu ko def yóbbu seen kër bu ñu demee ba ci sa taw feebar wala mu am jaaxle ñu jox la ca ndox ma nga naan wala nga raay da ngay daal di leen Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam su ma sànni tëdd yi nelaw bu ñaqee soxna yi dañ daan dénk ñaq wi boole ko seen parfum ndax mu gën a neex alayhi salaatu wa salaam waaye cër gi ko yàlla may yëpp di leen di ko kontaan toog nañu ci benn waay ñëw bëgg a gàlluwaay gàlluwaay ci biir jàkk ci saxaaba yi bëgg a dal ci kaw mu ne bàyyi leen dafa xamul li mu fi tuus li mu fi sow sobe la dañ ko sàmmal wax na ko kon bépp leen ndox ngeen sobe boobaa ñu doon ñëw wala bu ëllëgee soo bëggee gaanuwaay da ngay laaj fan la ñuy gaanuwaay ne fii dem yàlla xam nga ne kooku tolérant la li mu toogee ci benn kër soxnaam beneen soxna bi yàqal ko mu teg ko ci koor fi mu ko téye soxna yi nañ ma baal jigéen bi dañ xaw a fii soxna si daal di mel fël na fël na ndab bi di ci nekkoon tuur alayhi salaatu wasalaam moo ñu ne dajale nañu njëlle kudu xaaral umukum sa yaay dafa fiir di ragal ko jàpp mais du dara dajal ngeen loolu soo ko defoon am dugay te leer na pour bañ xam nga jot xam nañ ko xam nañ ne bés ko yàq mais dafa muuñ ne dajale na li ci nekk njëlle sa yaay dafa fiir sëriñ bi kon nee na nekk xoolal violence baax naqari nga def xaaf te boobu Sénégal nag loolu mooy problème am naqari deret dañ ci gis ñoo xam ne deux mille francs la ñuy jot bëgg ci ceeb bi jënd mu fàtte tan mbokk yi bi ci tegu ci moyens yi nga xam ne moo nekk ci discours xalifa bi bi ci tegu moo di mi ngi ñaan ñu wax naa suñu kilifa yi diine nit dañu doog naan kilifa damay dégg ci Cheikh Hadj Malick si Maodo muy wax ne nit dafay ñaanal kilifa kilifa dana ci ay xal ba du ko lakk te bés na ko jàmbat waxatuma muy ñuulu bëggul sax ko ko xam bu ko defee kilifa yooyu nag ñu war naan leen xam ne di yàlla def teg ci seen kaw gis na loolu ñu ñaanal leen suturaal leen ku ci am sa kilifa nit la ko mën mën naa juum su juumee nga ñëw wax moom ne ko mën nga su mas nangam ak nangam waaye dem ba war ma amatul kilifteef amatul réew mu mel noonu pour mu émerger wala mu jëm kanam mbokk yi di leen xolo boobu yi sax dañuy ànd dañuy am kilifa bi ci tegu moo di ñu ngi gën a soññ état bi ba tey mu dimbale béykat yi réew mu bëgg a dox il faut que mbay mën naan mi dinañ ko àggale ci àll bi ñu jàppale baykat ci wàllu jiw jàppale leen ci wàllu engrais tracteur yi nga xam ne ñu ngi koy li ci ëpp ci tracteur yi ci loxo borom barke yi lay nekk day baykat yu ndaw yi hôpitaux yi na tas àdduna bi yëpp na ci réew mi yëpp ko feebar jaratul ngay ñëw Dakar région ba nga nekk daa ko mën sa yoon. nee na itam mi ngi ñaan état bi lu mu mën a lu mu a taxaw na taxaw ci nekk ci ñu li mag ñi nga xam ne dañoo xeex na xeex na xeex na xeex ba amatuñu dañoo mujj toog ci table waxtaan bañ waxtaanee jàpp ne ñooy constaté ne ñu ngi ñaan waa réew mi yëpp ñun ñëpp ay responsable lañ kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi ñu joxante la soxlante génn li ci biir xol waxtaan ñu jiite ak ñu jiite suñ ko defee rek incha allah jàpp dana am parce que nit ci natt ñu bàyyi Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz mu ne ànd ñaar a koy yàq laaj loo xam ne mën ta nekk moo di ni ngi fàttali di fàttali boppam di fàttali parlementaire yi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale toogal fa réew mi toogal fa nation bi nañu bàyyi xeex bi ci biir assemblée nañ nekk mag dañu joxante loxo nekkal fa nation bi di leen jàmbatal su ko defee ni ñu dëgg demeen baax mbokk yi ci daal mooy tax sëriñ bi li ci des ko tamit dama ko imprimé bu arab bi ak boobu askan bi ak tamit dañu pare loolu ñu ngi sant mboolem kilifa yi fi teew yëpp waaye ñu ngi jagleel cant itam sàmmikul jalaale ndax ne ak bu nekk mu yónnee ñu forte délégation lu fi mën a xew rek dana ko dana dana ko bàyyi xel bokk koog ñun sëriñ Ba Kër sant bu baax a baax a baax mbokk yi pour bañ a guddal ñëpp fii